رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون نود أن نكمل حديثنا اليوم عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي يقول فيها إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والجزء الذي نتناوله اليوم وهو الجزء الأخير من الوصية يتعلق بأمره صلى الله عليه وآله وسلم إيانا أن نكون إخوانا بعد نهيه إيانا عن سلوك تتنافى مع الأخوة وهذه الأخوة أيها الإخوة المؤمنون كرسها القرآن الكريم ودعا إليها ثم أكدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية وفي غيرها من أحاديث كثيرة يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والأخوة التي يدعو إليها الله ورسوله لا تكون مجرد أماني walakinaha tatajassaru min xilaali muamalati baadina al baad wa tatarattabu alayha xuququn wa waajibaat noo ngi sant yàlla di julli ci bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba tukki mbokk yi tey danoo bëgg a nag sunu waxtaan ci ndénkaan li nga xam ne waxtaan nañ ci ay weer muy ndénkaan lu am am solo la yonent bi dénk te yim nu ci dénk yépp bu nu sàmmoonteeg moom day tax ba sunu diggante sunu diggante yi gën a rafet danu caa tere yu bari ci mujj nag moo am lum nu ca dénk danoo tere ñaaw njort dono tere di yeddonte ako luññutu biri jambur yi dano tere naxante dano tere iñaanante dano tere bañante dano tere itam dogonte yooyu yépp mu tere nu ko nag ci muj gi nag mu digal nu nu doon ay bokk ndax yooyu mu tere yépp mënuñu ànd ak doon ay bokk waaye buñ mënee bàyyi yooyu rek ma ɗon hay bokko kon ndigal loolu munu digal kiinu doon ay bokk moo mujj ci ndenkaan di moom lan bëgg a mottali tey mbokk googu nag alquranul karim moo ko saxal mooy yàlla ci boppam kon moo ko digle santaan sant nit ñi itam noonu jullit ñi mu santul nu doon ay bokk yonente bi itam dëgëral ko ci xadis bii ak ci yeneen xadis yu bare bari ci alquranul karim yàlla mi nga naan jullit ñi ay bokk rekk lañ waxin woowu ay bokk rekk jullit ñi ay bokk rekk lañ kon na ngeen di rafetal diggante ay bokk bu fekkee am na lu dox seen diggante mbokk yu dox seen diggante ci biir jullit ñi na ngeen yéwénal seen diggante na ngeen leen jubale na ngeen fexe ba jubale leen ndax jullit ñi ay bokk rek lañ bokk googu alxuraan di digle nag yàlla di ko digle yonent bi di ko digle du doon rek ay waxi kese du doon ay waxi kese rek waaye dafa war a feeñ ci sunu jëflante sunu jëflante moo ko war a jëmmal ni ñuy jëflante sunu diggante moo war a jëmmal bokk googu yi bokk googu itam nag day tax ba nit ki am ay wargar yu ko war ngir mbokk googu day taxe nag moo amee àq itam ci ay moroomi jullitam bokk na ci wargar yi nga xam ne mbokk googu moo moo koy waral bokk na ci jullit bi bëggal mbokkum jullitam ni mu bëggal boppam loolu bokk na ci wargar yi nga xam ne mbokko gi yalla wax ne moy dox diggante julit ni te mu sant len ñu jëmmal ko bokku na ci wargar yi mi tek nit ki mu bëggal bopam mu bëggal mbokkum julitam lim bëggal bopam lolu sax moy tax ak mat moy tax ak mat moy tax ak julitam mat ndax yonent bi lolu la wax sallallahu alaihi wa sallam dafa wax ne kenn la am kenn la ak dul mat li feeg bëggalul mbokkum jullitam li mu bëggal boppam bokk na ci warugar yi nga xam ne itam mbokkoo gi moo koy teg jullit bi muy ku ci ne doon dimbal ci moroom si mooy dimbalante mbokkoo yi day waral ci jullit ñi ñuy ñuy dimbalante dimbalante nag ci ñaari anam dimbalante ci luy andi njariñ ak dimbalante ci luy fànq lor lu ab jullit mën dimbale dimbalee moroom ja ci lu koy jariñ mu def ko lu mën a dimbalee moroom ja ci fànqal ko lor itam mu def ko loolu mbokkoo gii moo ko moo koy teg ci kenn ku ne ci noonu yonente bi wokk na ci lim wax dana jullit mooy mbokkum jullit du ko tooñ du ko seetaan seetaan mooy ko aajowoon dimbal ñu bañ koo dimbale du ko tooñ du ko seetaan te kuy ku nekk ci yittey mbokkum jullitam yàlla nekk ci yitteem mooy kuy dox ngir yittey mbokkum jullitam ah saafarawu yàlla danay saafara ay yitteem moom yàlla moom du dox ngir mu saafara waaye da koy saafara noonu nooy dox ngir yittee jàmbur saafaraw ku ko ciy def ci nun nag yàlla dana saafara ay yittee moom mi koy def ku fekk ab jullit bu amuk jaaxle mu fexe ba teggil ko jaaxle googee moom mi ko def yàlla dana ko teggil jaaxle ak àddina ak gu àllaaxira koo xam ne suturaal na ab jullit muy nekk na am na lu ne ci moom lu mu bëggul nit ñi yëg ko moom mu xam ko ba noppi nag moom it ànd ak moom ci nëbbu ko nee na ku def loolu yàlla dana ko suutaraal bu àllaaxira mooy dana ko nëbbal ay sikkam ak i bàkkaaram bu àllaaxira te ku yàlla nëbbalul rek dana doy lool moo tax kon luy tax yàlla di nëbbal nit ki jullit bi ay bàkkaaram ak i ayibam ak bu lu jara fonk la lu jara bàyyi xel la te loolu mooy nga koy defal nit ñi bi nga nekkee ci àddina koo xamal lu mu bëggul nit ñi xam ko nga bañ koo siiwal bañ koo feeñal bokk na ci àq yi nga xam ne yonente bi wax na ko ne ab jullit amel na ko moroom ja te bokkoo gii moo ko waral bokk na ci bu ko nuyoo mu fay ko mu ne ko asalaamualeykum mu ne ko waaleykum salaam wala mu dool li ca wa rahmatullahi wa barakatu mbo werede mo seeti ko to sammon teg teggini seeti ko weredi nit ñi fonk lañ seeti ko weredi waa lu ci bari nag teggini yañ ca war a sàmmontel luñ ko ci sàmmontel ñu war seet xëy na dañ koo xamut kon mën naa am sax bis xëy na nu waxtaane loolu ndax lu ko jar la bokk na ci itam bu faatoo mu gunge ko bu mënee fekk jullee gi mu julli mu fekke ko bokk ca bu mënee ànd ca rob ban denc ko ba noppi ñu ñaanal ko itam mu defaat ko bu mënu yaar yooyu te am lu mu ci man ci yi itam mu def lu mu ca man bokk na ci it bu ko wooyee ci lu baax mu wuyu ko ca mu wuyu ko ca bu defee teraanga woo ko ca mu wuyu ko mooy mu dem teraanga jam ko ca jam ko woo mu dem man ca jëfandiku bokk na ci it bu tislee sant yàlla nga ñaanal ko yërmande yàlla ndax ki tisli liñ ko sant mooy mu wax alhamdulillah mooy day sant yàlla ki ko dégg war na ko ñaanal yërmande yàlla ne ko yarhamukallah yow yonente bi ñu moo wax ne ay àq la yu jullit ameel moroom ji te àq yooyu mbokkoo gi dox seen diggante moo ko waral mbokkoo googu nag dénk ginnaaw bi mu ñu teree yi nga xam ne day tax mbokkoo googu du mën a yomb noo ngi ñaan yàlla kon mu def nu ay bokk yu bëggante tey dimbalante di ñaan mu defal ñu àddina goo alaaxira musal nu ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunt yiw yi soob nu ci ci njub mottil sunuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj gu rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن من الواجبات المترتبة على هذه الأخوة أن يحب كل منا لأخيه المسلم ما يحب لنفسه بل إن هذا من تمام الإيمان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن هذه الواجبات أيضا أن يكون كل منا عونا لأخيه في جلب النفع ودفع الضر يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ويقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس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 وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله